arbitre sifflé na ndeysaan dimanche le 20 novembre fii ci arène nationale ndeysaan combat spécial baa ngi noonu ndox ci diggante Alboury ak ki nga xamante ne nii mooy zoo technique ndeysaan zoo technique moom ngeen jàkkaar lool moo gën a gàtt moom nag combat am nii la du ko neexee sax sukk kooku mooy zoo technique ci biir ndeysaan zoo technique zoo technique zoo technique la ñu jàkkaar lool ndeysaan zoo technique la ñu jàkkaar lool bi may jàpp laa ko bàyyi fii léegi dama doon jàpp ndeysaan zoo technique zoo technique la ñu jàkkaar lool dama doon jàpp léegi bàyyi ko fii non non non parce que Serigne Bamba dama doon jàpp bàyyi non non non grand ana bracelet bi xool donc ma ngi ñëw amul bracelet day gën maa maa bàyyi wuy ma. waaw ça va ñëwal yoo lay waxal. kaay kaay ñëwal. non non kaay voilà. wuy ma. non non génn na ma ma place la duggee. wuy ma waaye yaa ngi may xool wala xool la place la rek laa xamee jàpp ci rek. waaw dama lay. waaw nu ngeen fawul place la. waaw wuy ma coon. per coon place la rek laa xamee. waaw. yéen a place la bi. eh am sa place la. waaw. place la dara. Albouri ak Joe Technique Albouri ak Joe Technique Albouri ak Joe Technique Albouri ak Joe Technique ngi lewentoo Albouri ak Joe Technique Albouri ak Joe Technique ak zoo technique zoo jël na ko zoo technique Albouri zoo technique ak Albouri zoo technique ak Albouri zoo musul daanu Albouri musul daanu zoo daa sukk zoo technique Albouri njatt na ko Alboury Joe Technique Alboury Alboury Joe Technique Alboury Joe Technique Alboury ak Joe Technique Alboury ngi yëkkatee public bi Alboury yóbbu na Joe Technique Ardo Alboury yóbbu